jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, di wax rek ne dama bëgg askan bi ñu yëg ne ñoom heure bi ñuy nekk seen kër di tëdd di dox seen soxla maire biñ fal ak administration bi ñu ko jox ñoo ngi liggéey ci suuf yenn difficulté yu mag yi nga xamante ne ñoo koy gàddu mais dafa jot nag ñu yeggee leen ko pour ngeen xam ne xeex la def nañ ci sunu warugal li ci des état moo ko war a def te defu ko te état dafa am doole. et voilà, vous lay day wóor ne askan bi ak maire li ñuy wax ñor na len motax dinañ commencé nañ ko sax ngi déroulé agenda par quartier pour séti gouvernement de quartier comité de gestion de quartier wo communauté bi homme politique pouvoir opposition képp ku Nord ñor dinañ la xol li nga xamantene ñun la war ñu defandoo pour que liñ ci am mu wat ci askan bi arène nationale mënuñu ko tabax biir Pikine Nord muy impacté Pikine Nord ci walu santé ci walu environnement ci walu sécurité ci walu éducation ci stress saa yu lamb amé ku fi amone xew mbaa jaay di ko dag fit di tëb tebi moy stress bi ma wax amuñu poste de police lepp ñu war ñu liñu wax responsabilité sociétale imposer état à ce que arène nationale bi lolu muy ñu ñu ko ñu imposer ñuko ko mu amal ñu ay retombées retombées yoy nak loi daf ci wax lu leer même budul arène mu am boîte wala dancing wala centre commercial bu am salle bu def spectacle bu mu munti ci biir territoire bi spectacle bi su amee entreprenante billet bi bu benn nit bu nekk quinze pour cent yi maanaam téeméer yu nekk ñett yi commune bee ko moom loi moo ko wax loolu du lu ñuy tàggu Macky Sall du lu ñuy tàggu député du lu ñuy tàggu préfet du lu ñuy tàggu ministre loi la dañ ko war a appliquer yow miy organiser bala ñu lay autoriser préfet dila autoriser wala gouverneur dila autoriser nee demal organiser dana la ndax fay nga sa droit d'auteur loolu SODAV moo koy encaissé bu fekkee spectacle dafa musique ba paré mu ne ndax fay nga sa taxe spectacle ci mairie ba nga wara a ñëw ci mairie bi indi say ticket ñu estampillé ko nga dem fay wala nga waxtaan ak mairie bi am forfait boy fay. wala mairie bi teg ay élément ñu taxaw ci bunt bi ci moment spectacle bu ñuy compter benn par benn bu ñu paree ñu ne nangam ngay fay loolu la loi bi wax te noonu lañ koy doxale léegi arène nationale bi mooy lan ba taxe spect am nañ seen arène faalewuñu tabax nañ ko boolewuñ ci comité de ñoo ngi def seen làmb boolewuñ waaw yaa xayti Mollah suñu taxe spectacle na dugg daaw budgétisé nañ quatre-vingt-dix million yi nga xamante ne weekend bu nekk bu dee am arène bu dee am làmb ñu ko indil commune Pikine Nord te bu mbënd bi ñëwee mairie bi mooy taxaw ren mbënn bi def naa fa weer ak ay moto pompe ak ay carburant ak ay suuf sëkk lu nekk te dërëm génnewul arène bi te arène bi moo causé loolu agression yi am jeunesse bi soxla ay emploi ci stationnement beeg yooyu ñu war ko organiser arène bi juru lu ñu dara président Macky Sall di seetaan loolu ministre Matar Ba toog di nelaw war a teg benn

sama bakkan bi buñ ko dee jël pour may défendre Pikine Nord défendre Pikine ci liñ fi indi mu ñuy indil ay tooxi doona te ñu war a am lu ñu ci ndàmpaay ak li nga xam te ne loi moo ñu ko dox defuñu ko man may taxaw xeex ko ci ba ma koy mën moo tax ma jóg wax ak yéen ministre Matar Ba na taxawal commité de gestion te mu xam ne biir arène bi mënuñu fi def dara te commune bi bokkul au cœur du dispositif te ñoo ngi koy def te boolewuñ commune bi ñoo ngi jël ay nettoiement ñoo ngi jël ñuy bale ñoo ngi jël ñoo ngi def lu leen neex boole wuñ commune bi loolu sax bu leen neexee waaye nag ku fii def spectacle yaa xayti mu laa fayal li nga war a fay di nga fay promoteur di nga fay mbër mi di nga jot sponsor waaye commune bi moom doo ko fay CNG dina laaj li muy war a laaj ba pare di nga bale fu muy xewee Pikine Nord duñ fa joxe dara ban république lañ nekk loolu moo war a taxaw ma bëgg président Macky Sall bu fekkee yëgoo ko woon maa ngi la koy yëgal bind naa la lettre jox naa lettre CNG jox naa lettre ministre des collectivités territoriales jox naa lettre ministre de l'intérieur jox naa lettre gouverneur préfet sous préfet kenn du wax ne yëgu ko wax naa ko conseil municipal wax maa ngi koy waxati fii mu des nag bés jot ñu war a def arène ma jël sama bakkan bi jox leen ko bu boobaa bu kenn wax yëgu ko woon askanu Pikine nag may xaar ci yéen ak Pikine Nord rawatina. ñu teg fële considération politique xam ne su jóg jotee askan bay war a jóg tey man maa fi nekk maire suñ ko xeexul ëllëg keneen bu fi nekkee maire di nga daw di ko xeex fekk doo ci jot ndax ki fi nekkoon joxuñu ko tey bu ma fi nekkee maire ñu koy xeex mu ñëw lañu ñu war a delloo ci askan bi mooy gën a mooy gën a yokk mooy gën a am laaj naa leen suuf si nekk ci wetu arène bi Matar Ba ak directeur cabinet signé woon ci ba def étude validation étude d'impact bi ñu ne buñu tabaxé tabaxee arène pare li ci dess dañ ko jox commune bi bëgg na terrain multi sport am financement bi mais awma terrain bu mako def bëgg na lycée awma fu mako def bëgg na centre commercial amna financement bi marché seng laa bëggoon def indi nañ ci ciow légui damay bàyyi sen marché dem ci àll ba fofu def fa centre commercial bu tagué wa Pikine Nord xamné ne am nañ ko amna ligne de crédit bu 13 milliards bi nga xamante ne partenaire bi ne ma joxoñ ma suuf ma tabax ko waaw xanaa bëgg luñ Pikine lu baax. loolu ci boo bëggee ma li ma la li ci conseil municipal bi délibéré bu njëkk bi nee nañ préfecture daf fee war a am parce que préfecture Pikine Guédiawaye la ne sous préfecture daan Pikine bi war a nekk Pikine Nord Pikine Ouest la ne mais irrégularité yooyu bu ñu amee fi espace mun nañ fa tabax loolu aussi simple. il suffit que ñu jël espace bi affecté ko commune bi commune bi jox ne nañ fi tabax commissariat police par exemple ndax ngay amee arène amul détachement police au moins pour dissuader les tentatives gunge amateurs et ak spectateurs yi beneen bi wax nañ dañ def maison de la femme tabax ko étage groupement yi bëri ci dëkk bi nii amuñu fu ñu dajee amuñu fu réunion amuñu fu ñuy des seen requête amuñu fu ñuy defee formation bu ñu fi maison de la femme day baax le conseil communal de la jeunesse le conseil départemental de la jeunesse de Pékin. amuñu siège dañuy loué xaalis Bob, xaj na ci ñoom nañ ñëw fii tabaxal leen ko am partenaire mu tabaxal leen ko lycée Pékin Nord war na am gannaaw Canada ab lycée bu tabax en hauteur bu ko defee ñu wër Pikine Nord yëpp ak ginnaaw raay ba fii ba Pékin Ouest ñu am lycée Vous demee Pékin Ouest amul lycée Vous demee Pékin Est amul lycée boo demee ginnaaw raay amul lycée fan moo am possibilité fu ñu am espace Pékin Nord nañ ko fi tabax yi le bok ci nga xam laaj naa ko conseil municipal laaj na ko wax naa centre commercial wax naa police wax naa euh, terrain multisport pour xale yi mun fu football wax naa maison de la femme wax naa complexe communication information benn centre d'information bi nga xamante ne képp ku bëgg liggéey képp ku bëgg loo munti bëgg euh, ay information concours yi dama bëgg bind lettre dama bëgg def requête de financement ñu teg fa ay experts yi nga xamante ne domaine boo ñëw di ko fa fekk loolu mooy commune su def nañ suñu warugal buñ ñu financé nañu jox suuf si rek ñu wuti xaalis bi indi ko bu ñu toppatoo ndax am nañ ko wala amul nañ ma jox suuf si ma jël suuf si teg ko valoriser ko jox ko garantie wut ku ko defar ñu tabax ko. loolu laa gën a contre su ko buñ ko joxul commune bi guddi bu ne gaa ñi puus di dëkk bu buñ demee ba def ko ay kër. léegi fu ñuy amee maison de la femme bu baax dañu tojaat ay kër fu ñuy amee préfecture fu ñuy amee lycée bi ñu bi ñu bëgg fu ñuy amee police moo pour ñu arrêter ñu fay tabax guddi il faut ñu jox ko commune bi moo ko gën a jege gën a yay mu ko contrôler aw projet de lotissement aw projet de d'habitation projet infrastructure sociaux de base yi Pikine Nord soxla te manqué ko te buñ ko deful fii ilaa yow mi diini dootuñu ko def ci kaw asamaan si dootuñu dem Kër Massar di fa wut maison de la femme fii rek moo ñu desee nañ ko sàmm pour infrastructure yooyu bañ ko defi kër.